Anyways.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 góori kese yenn saa yi ñu nekk ay jigéen ak i góor jaxasoo teg ci nag nekk ci nekkin woo xam ne ma ne ëpp naa tudd ci rajo laa la wax ba noppi xale yenn saa yi bu ñu koy def dañuy filmer seen bopp bu ko defee yenn vidéo yi fuite tas ci internet bi yàq seen dund yaxeet laa la wax ay waay sàmm leen xale yi la wax la xew ca seen Assainies doy na waar ñaari góor jigéen lañu fa bett ñuy sëy subhanallah tax ñu daanu mooy onk yu metti ñu dégg ci néeg bi ñu doon defee jëye jooju ci lu ni mel moo xew la 15 août bi weesu ci ab chambre meuble bu nekk ca place bu Bessayaawo juróom ni ndaw yoo xam ne seeni at mu ngi toll ci fukk ak juróom ñett ak ñaar fukk lañu fa bett ñoom it ci wàllum ngóor jigéen waay waay suñu ndaw yi yàqu nañ ñaari borom ñaari tur yi ñu teg loxo ca Parcelles Assainies guddi fukki fan ak benn jëm fukki fan ak ñaar ci weeru ut kenn ki di wuyoo ci Tourès Diouf ka ca des enn gay ma ne dañu leen a bett en action laa la wax dëkkandoo yi daal ñoo dégg ay onk yu métti ci chambre bi naka noonu ci la ñu forcé bi fekk leen ñoom ñaari góor yi ñu necc waay waay waay waay mim réew bi di leen tegee bët rek ci lañ leen naroon duma duma yu métti naka noonu ci lañ ñëpp foxee daw bi ñu informé police ci la ñu ñëw daal di leen poursuivre dàq leen ba teg leen loxo gannaaw bi ñu leen tegee loxo nag ci la police defee perquisition ci seeni chambre waaye li ñu fa fekk doy na waar ay préservatif ay lubrifiant ay maquillage ak perruque <laughs> waaw waano góor ak maquillage ak perruque ci kanamu yoon nag es Diouf nangu na ne moom góor jigéen la daal di ciy teg ne vice boobu mu ngi ko dugg depuis 2019 <laughs> ma ne ko tey boobu vice <laughs> góor ak góor es Diouf moomu nag nag moom ci boppam moo dénoncé N Gueye ma dëkk ca unité 13 teg ci daa di dénoncé yeneen juróomi moroomam <laughs> waaye ma suñu gone yi suñ jogul jógul musibaam laa la wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca université Assane Seck bu na waar ab militaire daal lañ jàpp mu siwuli di jaay yamba waay waay waay waay waay <laughs> moo tax ma ne jàngoro ji dal wax Sénégal nag mooy li Babacar Mbaye Bams di wax Sénégal réew la moo xam ni comme rido mayga moom daal ku yolab dugg criminel boo xam ne moom lañ doon gën a recherché en Europe ndakaaru njaay gii lañu ko tegee loxo criminel bi d'origine tchèque la di wuyoo ci turu Stanislav Seydi am ñeent fukki at juróom moom waa Europol ñu ko doon wër lu mat fukki at benn di ko toppee ay infraction yu doy waar wàllum trafic ci wàllum explosif ci ay ar arme mane yu doy waar laa wax criminel boobu ñu teg loxo Dakar nag nee ñu ma nga jaaree ca Gàmbi daal di dugg si ci Ndakaaru ah ma ne leen Sénégal day compagnie rek réew moo xam ne frontières yi compagnie contrôle zéro ma ne kookoo feeñ rek mais criminel yi gën a mag bu ñu leen doon wër fii Sénégal dinañ leen gis ndax réew moo xam ne comme rido may ka ku fa dugg mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz